maternité bu xaar yàlla yàlla dafa def Khalifa Ababacar Sall tàmbali tabax bi maire am le maire Soham El Wardini eggali ko tey man monsieur le maire Barthélémy Diaz joxe caabi donc pour wane ne rek ne relation bi nga xam ne moom la ñu am ak ville de Dakar muy relation bu am solo di liggéey ci li nga xam ne moom la ñuy mutualisation ku ci nekk di dajale say force la nga néew la keneen ci jàppale la ci ci loolu lañ liggéey xaar yàlla defar autorisation pour ñu def ko centre de santé parce que lépp loo xam muy commodité prévoir nañ ko foofu pour mu nekk un centre de santé parce que xar yàlla population ba nañ doog ak seen dajale war na mën a nekk centre de santé ñu jógee foofu ñëw ci li nga xam ne moom mooy stade municipal de Grand Yoff stade municipal de Grand Yoff dafa nekkoon jooytu waa Grand Yoff dañu bëggati léegi waa Grand Yoff dootuñ génnati Dakar pour mën pratiquer seen sport ñu dans quinze jours incha allahu rabbi dinañ ko terminer pour stade bi mën a fonctionnel fii mois d'août en attendant dix mois beneen turbine bi di pare. au total dinañ am quatre mille et quelques places yoo xam dinañ ko am parce que am na benn turbine boo xam démontable la commandé nañ ko ba pare turbine bi war ñëw sur Dakar pour mu wax dëgg yàlla nawetaan yi match de football ñu mën ko accueillir Grand parce que bëggatuñu waa Grand di jéggaan yi di mën a pratiquer